ak El jàmm ci xibaar yi yéenekaay yi nga xam ne rek moom la xëyandoo ñu daal di koy door ak enquête yéenekaay lépp loo xam ne jëm na ci mbirum di Ousmane ak xale lu jigéen lii nga xam ne rek nañu da koo violé moom Ousmane Sonko ndax dañu ji woolu nañ ko ci wàllug yoon ak yu ni mel la ci des moo di maanaam daal fakat yi da xam ne ne alalu jigéen li gannaaw ba nu ko xoolee xam nañ ne seq naa góor waaye tamit moo di lu jëm ci appel téléphonique yi gannaaw ba nu ko saytoo takk der yi lañ ca seetlu moo di Ousmane Sonko moomee appelam dem na foofee ca salon boobee nga xam ne fa lañ doon fuddee ndigam yéene kaay gi di l'observateur dina xamal ak lu mën a xew daal mbirum Ousmane Sonko ak mbir ya la ca xew doy na waar jamono jii kay moom la ñëpp di waxtaane ba kay moom moo ko doon liggéeyloo dafay xam ne bés boobee nga xam ne rek moom la ñu ma nga moom la ñu dënmal nii ñu def Khalifa Babacar Sall ak yi nga xam ne rek moom moo di Karim Wade yàq deram ba yooyee la jongante bu ñu ca yeggee Ousmane Sonko du dara dara ci réew mi yéene kaay gi di critique ak enquête di ñu xam ne docteur Moussa jàdd yi nga xam ne rek yëkkat na ko dafay xam ne tuuma yi nga xam ne rek teg nañ ko ci ndodd Ousmane Sonko bu yeboo kay mu ñaan mu bañ a nekk dëgg waaye nag bu nekkee dëgg loolee dina dana doy waar lool ci mbirum Ousmane Sonko ndax moom Ousmane Sonko moomee nga xam ne rek wàllug leeraange la doon woote ci réewum Sénégal yéene kaay yi di critique dina xam ne Ousmane kay la mu wax moo di yàq deram la def fekk jamono jooje lii yéene kaay dina xam ne lépp loo xam ne rek jëm na ci covid 19 gekk tolluwaay gi ci réewum Sénégal Sénégal kay jamono ji lu jëm ci wàllu ko jumtukaay ga ci wàllu ko ñàkk yéene gi duñu na ci réewum Sénégal maanaam daal matériel yi yi agsi na yéenekaay gi duñu xamal ne lu toll ci ñetti milliards yoo xam ne rek jëm ne ci fanweer ak yi ngeen jàpp ne école yi kay bu tëjee est-ce que dina ndax covid bi nii nga xam ne rek noonu lay doxee doy na waar yéenekaay duñu xamal ne Anta Diop mi nga xam ne rek moom moo fi nekkoon borom carbone 14 ba mu faatoog léegi fanweeri at ak juróom jamono ji nag ñu koy fàttaliku fekk jamono joojee libération yéenekaay duñu xamal xibaar bu doy waar Omar Waar benn waay la boo xam ne ma nga dëkkee ko moom moo di caaroy sur moom kay moo jàppab jarbaatam jamono ji egg ci kawam ba jarbaat ba wann lool mu nekk nag lu doy waar. Elhadji Ousseynou Ndiaye ak Elhadji Ousseynou